أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen bal xaq di ñaan ngeen bal ñu àq di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dolli ñoo dimbali dolli ñoo defal tawfiq jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te nungul ñu suñu jaamu yàlla bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy dellu si waat rek ci sunu jotaay bu am solo bi muy liggéey bu am solo bi nga xam ne bi yàlla dañu koy boole muy M-Media Group Nuuru Daarayni ñu di ci sant yàlla bu baax a baax rek waaye tamit di ziyaar mbokk yépp rek di leen ndokkeel di soññ suñu bopp di leen soññ rek ci ñu gën a jàpp ci liggéey bi bu baax a baax rek te xam ne tawféex la joo xam ne ji yàlla defal nañu ko te luñ ci gën a jàpp rek di ko gën a sellal mu gën a jëm ca kanam gën a tawféexe tuyaaba ji ak xibaar yi nga xam ne moom la ci yàlla digge ci képp koy def lu baax rek ñu muy gën di yaatu ñu di ko mën di am yàlla nu ko yàlla gën a jàpp ndalal di jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jël nuyoo boobu rek ak ziar bi rek di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala mu dolli ko jàppale dolli ko dimbali dolli ko defal tawfiix ba lépp li nga xam ne lii bëgg na ko liggéeyal maam ji rek ak Cheikh Balla Thioro Mbacké ci yoonu maam Xaadimu Rasuul bii mu am ci lu kawe njortam te ma ne ko nu kawe njortam te defe ko nu kawe njortam te nu ànd koog moom bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallama di siyaar bokk yépp nag boroom xam-xam yeeg sunu kilifa yi nga xam ne yi ñu ngi ci biir liggéey bi soxna yi boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñi dañuy tàbbal ay laaj yu am am solo ci biir liggéey bi daal ñin ko seqal ñëpp daal nañu xam ne ñoo ngi leen di ndokkeel di leen gërëm ci ñaan yàlla mu loolu ñoo defal tawfiq ba li nga xam ne lii moo nuy dimbali ci li nga xam ne mooy li nu war ci suñu diggante ak yàlla tamu dig jaamu yàlla rek waxtu bu mën a doon rek ñuy ñaan yàlla doon ñu ca jàppale ban di ca man diggan di yëngatu suñu kemtalaal kàttan bi jëy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama kon ñuy jéggalu bu baax rek tey jéem a jubluwaat rek ci liggéey bi ci xool yenneti laaj yi nga xam ne yi moo fi rot ñu jëm cee tontu suñu kemtalaayal katta rek di ñaan yàlla mu doon ñu cee defal tawfiq bu baax a baax ay tey te defal ñu dégg ak topp kon xam naa rek suñu rakk ji muy Moustapha Thiaw ñoo ngi koy seer bu baax a baax di ko ndokkeel dafa am laaj yu mu fertoon keroog te mu desan boo xam ne bii xam naa ñu ngi ko doon jéem a xaw a mooy toog sax waaye rek incha allah rek ñu jéem cee tàmbale suñu waxtaan tey ci jéem a def lenn ci ak leeral goo xam ne gii moom dañu ko laaj ci suñu wàllu jëmb ji muy dafay laaj man mii dal man kañ laa tàmbalee jàng ak fan laa jànge xam naa loolu moom dañ ci def ab tënk boo xam ne bii xañ na tuuti lay doon ci rek li nga xam ne lii. waroon nañ ko cee mën a leeral waaye lañ ci wax loo xam ne i tamit dina doy loo xam ne lii ku ko dégg xam ne nii la fa demee su ko defee bala ñuy wax fi ñu jaar ak yooyu dañuy wax solo si nga xam ne si maanaam ab jullit dafa am solo ci moom mu war di sàkku xam-xam mu war a am xam-xam te it bu ñuy xool sunu jàmbar ji nu yàlla booleel muy Cheikhul Xadim radiyallahu taala anhu xaman ne moom ab julit ala kulli xaalin dafa war a xam dafa war a sàkku xam-xam te it mu liggéeyal yàlla liggéeyal yonente bi liggéey boo xam ne bii lépp loo xam ne lii luy lu lislaam yittewoo la rek yàlla subhanahu wa taala da ko may maw xaadimu rasul mu jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko ko moo tax daara yi nga xam ne yii moo nekk ci réew mi ak ci bitim réew yëpp te ñëw di ko tuddee mahadul azhar lit dirasati al islamiyati wala mu asasul azhar al islamiyatu muy daara yi nga xam ni a cheikh mouhamadul mourtada mbàkke yàlla na ko yàlla dolli leer te gën ñoo taas ci barkeem da ko taxawal ci réew mi ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne bii moom la ci taxaw loolu dafa fekkan ni lu ab cër la boo xam ne bii yàlla da ko cëraleen maam xaadimu rasul ci liggéey bi nga xam ne bii maanaam moom lay liggéeyal seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw loolu dañuy wax ci wàllu xam-xam ndax yàlla subhanahu wa taala dafa naw ñi nga xam ne ñi dañoo am xam-xam lool da leen a yëkkati itam da leen a jox ay daraja yu rëy rëy yoo xam ne yu kawe kawe la mu ne yarfaillahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin yàlla dañ ne ñi nga xam ne ñi daan dañoo gëm ci yéen yéen jullit ñi ñi gëm gëm gu wér a wér tey def lu baax ne ne ak ñi nga xam ne ñi jox nañ leen maanaam may nañ leen ñu doon boroomi xam-xam maanaam ñu am ab xam-xam ab diine islaam yàlla ne ne ñoom ñii ñëpp dama leen di boole jox leen ay daraja yu kawe kawe yoo xam ni maanaam ñoom rek laa koy jagleen muy ñi ko gëm dëgg dëggi gëm lam leen di jox ci daraja du bokkut ak du bokk ak ña àggarut ca seen ngëm googee waaye itam boroom xam-xam yi nga xam ni dañoo am xam-xam ba te yàlla doo nga taxam ñu koy sàkku te it di ko jëfandikoo te yàlla rek tax ñooñu tamit yàlla da leen di beral ay daraja yoo xam ni yii ñoom itam daraja yooyu rek ñoom ñoo koy yelloo te it bu ñu xool ba tey sàkku xam-xam ci ni ko xaadimu rasul bàyyi xel ngir dellu ci alxuraan ndax dañuy jàng ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama waaw ne ne ñi nga xam ne ñi ñooy ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla daal mooy ñi nga xam ne ñii dañoo am xam-xam ak diiney islaam te yàlla dong tax ñu sàkku ko bu ko defee ci lii ñu yàlla teg mu di jaamu yàlla dañu war koo jaamu ci lislaam teg ko ci sunna seydina muhammad yàlla daf noonu bala ngeen ma mën a jaamu da ngeen may xam ba noppi ndax bu ngeen ma xamut du ngeen xam naka ngeen may jaamoo mu ne faarifu nii xabala an taabudu nii fa in lam taarifu nii fa kayfa taabudu nii yàlla da ne yéen sama jaam yi yéen ñi ma gëm na ngeen jéem a góorgóorlu ba xam ma njëkk ngeen di sóobu ci di ma jaamu yàlla ndax su ngeen ma xamut ba pare doog a jublu ci jaamu yàlla rek maanaam jaamu yàlla ga day des lu bare bare maanaam dafay def ba mel dafa defab laaj ne kon nan ngeen may mën a jaamu mooy kon jaamu ga day am lu bari loo xam lii da cay des ak yu baree bare yoo xam ne yi yàlla da ko wax ci wàllu sàkku xam-xam ñu war ca góorgóorlu suñ kemtalaayal kattan ndax gis nga loolu ci njàngalam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam looloo taxan sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin sàkku xam-xam daal farata la joo xam ne ji yàlla da koo teg bépp jullit boo xam ne bii bu góor la waaye tamit ak bépp jullit boo xam ne bii jullit bu jigéen la kon ku mu mën a doon ci ñun rek da ngaa war a sàkku xam-xam sa kemtalaayal kàttan yonente sallallahu alayhi wa sallam daal di wax ne utlubul ilma walaw bis siini daal di ne maa ngi leen di digal yéen ñi nga xam ne ñi da ngeen a gëm te bokk ko ci sama xeet na ngeen di sàkku xam-xam te sàkku googu jaral leen ba donte da ngeen dem siin sax muy dëkk bu sore boobee ngeen dox dem fa ngir dem sàkku ji xam-xam ba bu ko defee defe naa diggante Makka ak siin sori na soriwaay goo xam ne gi ca jamono ko yonente bi di wax sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne lii day yóbbu nit ki siin jafe na lool bu ko defee mu mu natt foofu sàkk xam-xam li mu war a jëla doomu aadama yi nga xam ne boo leen dem foofa da ngay jàngal rek ay coono yu baree bari yàgg ca yoon wa lool mu métti lool nga sonn ca doga àgg foofee di ko fa sàkku ji mu ne kon na leen sàkku xam-xam jaral ngeen dem donte da ngeen di dox ba siini dem ngeen dem sàkkoo ji ko fa daal di waxaat moom sallallahu alayhi wa sallam daal di ne utlubul ilma min al mahdi ila lahdi ne ne yéen ñi gëm yàlla te bokk ci sama xeet maa ngi leen di digal fu ngeen mën a nekk na ngeen sàkku xam-xam bi ngeen ganee àdduna ba kere ngeen di génnaat àdduna su ko defee soññ bu mel nii ak lu ndigal yu mel ni nga xam ne yàlla danu ko digal Seydina Muhammad gën nu koo leeral gën nu koo jàngal danoo war a soññ ci ñu góorgóorlu lool ci sàkku xam-xam loolu taxal xaadimu rasul waar woowu nga xam ne bii moom la ko ci yàlla cëral mu wax ci ay bayri yu wér a wér yoo xam ne yii yàlla da koo jagleel daara ji nga xam ne ji mooy daara Cheikh Mouhamadul Mourtada Mbacké xaadimu rasul dafa wax ne bil Mustafa lii banal xuddus madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal kabadu Cheikhul Xadim dafa wax ne yàlla mi nga xam ne mii moo moom lépp moo sañ lépp te mooy def lu ko soob tabaxal na ma daara joo xam ne ji ni ma koy tabaxale ni ma ko taxawale ci barkeeb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te daara jooju ne ne bi ma ko yàlla dénkee jox ma ko tabaxal ma ko ci barkeeb Seydina Muhammad boobu ne ne daara ja yàlla da caa def ay secret yu bari yoo xam ne yii képp koo xam ne kii maanaam yaa ngi ca biir daara ya rek di ca nekk di sàkku xam-xam te yàlla rek tax nga di ko wut ne ne di nga ca tàggoo ak ñetti muy al asa muy lépp loo xam ne lii loraangay àdduna ak alaxira la boo jaaree ca daara yooyee te yàlla tax mën naa am nga mucc di nga ca mucc wal jëxlu tey daara yooyu dina tax képp koo xam ne kii da nga réeran boo ca jaaree sa réer sa réer googu dina jeex dina dañ wal kabadu te it daara ji yàlla def na ci baatinam képp koo xam ne kii yaa ngi ci di ci sàkku xam-xam te yàlla tax nga di ko sàkku di nga tàggu coono àdduna ak laaxira ñett yi nag defe naa bu fekkat ni loolu dong lay la ñuy jariñoo ci jàng ci daara yi kon ñu mën ne loolu dong doy na waaye ak ya ci nekk yëpp yoo xam ne yii yu baree bare la yoo xam ne yii mënee su koo lim daal di waxaat ne lakkamata bi bi shukurin watu ba yaa waasi an wasaata bi bi murtaba Cheikhul Xadim it comme nga xam ne li ko yàlla dénk ci liggéey mu war ko liggéeyal Seydina Muhammad njabootam nga gi nga xam ne gii moom la ko yàlla booleel jox ko ko dénk ko ku ci nekk dala ca wutal wutal aw waar woo xam ne yow mooy la nga xam ne lii moom nga war a béy kon bu dee ne ci wàllu saako xam-xam la daal mën nañ ne a Cheikh Mouhamadul Mourtada mii moom la xaadimu rasul dénkan fànn googu ndax mi ngi naan lakkamata bi bi shukurin wa rida yaa waasi yow yàlla mi nga xam ne mi da ngaa yaatu ba matale lépp ba matale lépp ñoo ngi jégalu dara ump la daal ne ne ko maa ngi lay tuubal tey di la sant di la gërëm ci yaatal gi nga xam ne gi yaatalal nga ma ko xam-xam te jaarale ko ci sama doom yi ñuy wax Mourtada kon loolu lu firndewu la ne xaadimu rasul moom daaraam yi nga xam ne yii Cheikh Mouhamadul Mourtada moom moo ko doon saytu loolu mooy li nga xam ne lii moom moo doon waaram ci li nga xam ne lii moom la sëriñ bi di liggéeyloo doomam yi nga xam ne yii ñoom la ko yàlla booleel. ci kaw loolu it xaadimu rasul xam ne moom sàkku xam-xam danoo war te moo nuy jëriñ adduna ak alaxira mu soññu ci lool ba ne yaa ayuha sibyaanu laa tastaxilu an ilhuda wa bil ulum istaxilu fastaxilu bil xifzi wa tilaawa wa jtanibu majalis ashaqawa xaadimu rasul ne e yéen ndaw ñi maa ngi leen dénk bu leen soxlawoo lenn lu ak njub maanaam na ngeen di yittewoo loo xam ne li ak njub la waaye tamit li nga xam ne mooy xam-xamu diine lislaam bi na nekk seen soxla yéen ñi nga xam ne ñi ay ndaw ngeen daan ne na ngeen di soxlawoo ci di jàng xam-xam tey di ko mokkal di ko jàpp ci seen xel di ko téye bañati ko fàtte wajitani bu majalisa saxaawe tey na ngeen di moytu yéppi jataay yoo xam ne yi luy waral texee deg nit ki la rek fu ngeen ko gis na ngeen ko daw moytu ko te bu leen ca jëm daal di waxat ne yaa ayuha shubbaanu in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal daal di jàll ca waxambaane ne yéen baxama yéen waxambaane yi day su fekkee ni ragal ngeen di dem ci seen ak dund ba ci yàgg si ngeen am kaaj ngeen am gàcce am kersa bala ngeen a dugg ci daraay àdduna na ngeen jiital sàkku xam-xam ci liggéey bi nga xam ne bi moo ngeen di liggéey ci àdduna kon lii itam dafay doon loo xam ne lii suñu Cheikhul Khadim doon nañu ko soññ ci ñu war a sàkku ci xam-xam waaye itam da doon waxi na fa kullu waman nahaakumu an taallumi fa nahihu ila dalali yantami xaadim rasul da doon wax ne képp koo xam ne ki mi ngi leen di tere ngeen sàkku ji xam-xam diine islam ren na ngeen xam ne tere googee mu leen di tere ci ak réer rek la askanoo daa de wax ne wa man nahaakum an taallumi fa huwa yaqudukum lin niqami na ngeen xam ne képp koo xam ne kii da leen a tere ngeen dem sàkku ji xam-xam na ngeen xam ne kooka ma nga leen di omat jëme leen ci ay coono ak i njàqare daa di waxaat ne wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatullahi lil mujrimi na ngeen xam ne képp koo xam ne kii tere na leen ngeen dem sàkku ji xam-xam na ngeen xam ne moo nekk xalifaab iblis muy seytaane fii ci kaw suuf bu ko defee xam-xam am solo lool baax lool nga xam ne dañoo war a góorgóorlu suñu këmtalaay kattan comme ni ko yonente bi waxee feeg noo ngi ci àdduna rek suñu waxtu yëpp ñuy jéem di xam loo xam ne lii xamuñu koon ndax mag dafay wax ne al jëhlu yuxfidu ummatan wa yuzilluha wala ilmu yarfawha ajalla maqaam mag mu baax dafay wax ne di wax lenn ci solo soo xam ne si xam-xam da koo am solo ne ne ak réer day mën naa suufeel aw askan woo xam ne ñu waroon a yëkkatiku ci àdduna lañu ñu waroon a siiw lañu ñu waroon a liggéey lu bare bare ci kaw suuf lañu waaye ñàkk xam-xam muy dañoo réer suufee leen ba kenn du leen ràññee kenn du leen xam ci àdduna waaye itam ne ne xam-xam te mooy fekk askan woo xam ne wii bu doon tëndi xam-xam la maanaam bu ñu amutoon ab xam-xam maanaam dañu nekk ñu suufe ñoo xam ne ñii kenn du leen xam ne kenn du leen ràññee ci kaw suuf kon loolu daal bokk na ci lenn loo xam ne dañ noonu nañ ko jiite ci laajab Moustapha Thiaw bii ngir ñu mën a xam ne daara suñ murtaba yi dafa am solo te it am na ci baatin boo xam ne bii xam na nit ki moom faw mu dund ko rek doo ko xam loola lu mu doon ko ne yàlla na yàlla doole defal tawfiq di jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dafay bokk ci solos daara si ak Cheikh Mouhamadul Mourtada danaa wax naan képp koo xam ne kii yaa ngi may jàppale ci sama daara yi rek su boobaa man ne ne bu ëllëxira man maay doon sa seere fa kanam yàlla loolu xam nga ne lu amas am solo lu rëy rëy loo xam ne luñ ja lu jar a bàyyi xel la te da doon waxin ne daara yi moom yàlla ñoom moo nu koy liggéeyloo te jàpp na ci jàpp goo xam ne gii ku ci jàpp mu dem ku ci jàpput it day dem ne loolu li ma leen ko mën a misaal rek mooy mi ngi mel ni bërigo boo xam ne bi dañ ko duyee ko diw ba mu fees ñu teg ko ci kaw mbartal maanaam kaw montagne masalan léegi war koo bàyyi muy bërigo bi wàcc ci suuf ne ne su boobaa yow bërigo ba boo demee bu la yàlla dimbalee dafa la tawfeex da ngay góorgóorlu rek maanaam teg ca sa loxo te xam ne boo ca tegee sa loxo ba wax ko mu dem boo ca tegatit bërigo moom dina dem kon loolu itam ab tënk la ci loo xam ne di Cheikh Mouhamadul Mourtala Mbacke daana ko wax ci solo soo xam ne si maanaam daara yi am na ko solo. kon lenn loo xam ne lii rek dafa jëm ci laajam boobu ci muy laaj fu ma jaar ci njàng yooyu xam na dañ koy xamal ne ko rek bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadul Mourtala Mbacke jamono. ji nga xam ne ji ci la war a tàmbali liggéey boobu jot na bam tàmbali di ko tasaare ci réew mi sunu dëkk bi dafa bokk ci dëkk yi nga xam ne yii bokk na ci yi nga xam ne te jamono ya Cheikh Mouhamadul Mourtala Mbacke dafa yeble woon ci dëkk yi ñuy ñëw di yëgle daara yu nga xam ne da ko bëgg a taxawal te jamono jooje mën nañ ne kaw suuf fii ci Sénégal rawatina sunu tund wii nga xam ne wii mooy làmbaay booba xam-xam jafe na fi lool lool lool ndax bu ñu koy natt rek ci fii ñu dëkk nii muy ndondal jamono yi nga xam ne ñu ngi fi waaj a indi daaray suñ Mourtada ji jamono yi boo fi mës a indi leetar ak leetar bu ñu ko mën a bind moo ama alxuraan la wala meneen bind su boobaa bu dee alxuraan la moom dañ bu fekkee ne dañuy wax ku koy jàng nañ naan demal ci diw kenn dong ko fi mën a jàng booba ca jamono yo booy xool wala ñu ne la demal ci beneen dëkk boo xam ne bii booba ñoom ñoo mën a jàng mbindam alxuraanul karim maanaam jamono yooyu moom bi daara ji waaju ñu moom foofu la dëkk bi toll maanaam daal boobu daal fii moom lenn xam-xam moom moom boobu amu fi maanaam ndax booba mag ñi maasee ñoon ak am njàng te it xamuñoon génn dem ca bitti te yeneen dëkk yi nga xam ne fa lañ doon jàngee dafa jàng ji su ko defee daara ji nga xam ne ji ci la jaar muy daara al Cheikh Mouhamadul Mourtada ji ñu ngi ko jëkk a ubbi fii ci ndondal ko du ngoy atum 1979 atam 1979 la ñu ubbi école bi nga xam ne jamono joojee mag ñi nga xam ne ñii yàlla da leen a defal lan tawfiq dañoo jàppan ci école bi lool góorgóorlu ci lool jàmbaar ci mu jaral leen seen lépp nag ba ñoom mag ñi jamono ye mbaar mi nga xam ne mi moom lañ daan def ñoom mag ñi ñoo daan dugg ci àll bi wut gi tax wut ay xer yoo xam ne yii moom lañ koy sàkkate waaye tamit làmb ci seenu ñaq loo xam ni moom la ñuy jëndee fi ndefeer bi nga xam ne bi moom lañ koy feteñe maanaam moom lañ koy sàkkate defar mbaar mi ba mu baax bañ mën cee dugg jàng waaye tamit ñu continuer ca loola di ca def seen yitte yépp te jamono joo nga xam ne ji jafeen na lool yombutan dara dara dara ñun ñi nga xam ne ñoo jëkka dugg ci daara jooju nag jamono yooya jàngalekat yi nga xam ne ñoo fi jëkk a ñëw muy ñaari jàngalekat ñoo fi jëkk a ñëw bi ñu ñëwee ba ñu tàmbali di jàng ñu commencé di ñu bindal ci tabla bi bi ñu tàmbali di bind araf yi nga xam ne ñi moom la ñu war a jàng te mooy abajada bi muy li tàmbale ci alif fun baa un ba ca mujjantal ak araf ya booba ñun ñu nekk ci mbaara mi di jàng amul kenn koo xam ne ki maanaam ak alif dong maanaam xamaan nga ko booba ndax booba bi jàngalekat bi jëkkee jënd bind ak alif ci kaw tabla bi mu taxaw noonu muy laaj naa lii lan la booba ñun ñoo ngi ko naan lii ñenn ñi naa lii kuur ak Baay Faal la ñenn ñi naa lii aw yet la nga xam ne moom booba dara xamuñu ko ndekete ak alif la nga xam ne araf yooyu noonu lañ ko réeroon dara dara xamuñu ko ca te yàlla dogal na at moom nga xam ne mi moom la ñu jëkk a tàmbali laataa at may jeexe wax dëgg yàlla yàlla defal nañu tawfiixi araf yépp nag ñu ràññee ko xàmmee ko foo ko mën a maas ak foo ko mën a dugal ak noo ko mën a xëccee yépp yàlla dogal daal ñu mën koo ràññee bu baax a baax ci barke boo xam ne bii njàngale moom amal na ko barke ak it barke boo xam ne bii daara ji aman na am na ko yàlla def ko ci biir bu ko defee fii ci ndonal moom maa ngi fi jànge ñeenti at dog fee jóge dem Bambey foofu itam ma jàng fa ñetti at jógewaat Bambey dem Ndaam jàng fa ñetti at booy xool daal sama jaar-jaaru jàng daal ci bu dee ne wàllu béréb bi la mooy fi ma jëkk a jànge moom ndondal la teg ci Bambey daal di dem Ndaam muy ñetti dëkk yooyu daal fi laa jot a jaar ci wàllu dem bi toog ci taabal ban bi sàkku xam-xam ñu di ma jàngal waaye itam booy xool diir bi nga xam ne bii moom la am itam maanaam boo koy xool lay toll ci fukki at ndax ñeenti at ndondal la ñeenti at ba ñetti at Bambey ñetti at ndaam waaye ci kaw diir boobu nga xam ne boo koy xool wax dëgg yàlla lu xaw a gàtt la lool ci wàllu jàng terewut ne ñun ñi nga xam ne ñi noo génne woon ndondal di dem ci daara yooyu muy Bambey ak Ndaam ak feneen fu ñu mën a aw fu mel ni Cees ak yooyu wax dëgg yàlla fu ñu fi masaa dem rek daara juñ ci masa nekk wax dëgg yàlla yàlla dañu fay defal tawfiix dañu fay ràññeeku lool macha allah wax dëgg yàlla ci tawfiix joo xam ne ji yàlla defal na ko xam ne moom saa bu ñuy natt élèves yi ci wàllu di def ay composition wax dëgg yàlla jamono yi moom daf mën naa wax ne ñun ñi nga xam ne ñi dañoo bokk jóge fii ci daara ji ci ndondal daanaka ñooy ne ca bopp ba nag ci ndimbalal yàlla ak tawfiixam ba ñu àgg ba mat ñeneen ñu ciy doog a topp doog caa topp loolu nag tawfiix la joo xam ne ji yàlla ñu ko defaloon wax dëgg yàlla tey xam naa day dellu ca coono ba ak yittewoo ba nga xam ne gi mag ñi yittewoon nañu ko ba loolu lépp wax dëgg yàlla barke boobu topp ñu ba yàlla defal na ji tawfiix yoo xam ni yu kowe suñu jortu la xam na boo koy xool diir bi yàggut lool waaye it yàlla moom lu lu mu nar a jàppale jaam bi rek maanaam am na tawfiix maanaam man ko ko defal na mu ko soobee ndax am njàng moom boo ci xasee ubbeeku rek di nga ci ubbeeku ubbeeku boo xam ne gi mën naa am doo ca sori ci ay at waaye itam di nga ci ubbeeku ubbeeku boo xam ne gi yàlla dina la defal tawfiix yi di nga am buntu bu ubbeeku boo xam ne bi yow fi mu ne téere boo xam ne bii rek maanaam yàlla dogal na nga tiim ko muy lu jëm ci wàllu langu arab bi yàlla da lay defal tawfeex yow moom mën nga caa jàngal sa bopp kenn du la te jàngalati loo ca bëgg a mokkal mën nga ko caa mokkal te it loo ca bëgg a xam rek mën nga koo xam xam naa loolu ñi nga xam ne ñu jàng nañu moom dinañu xam fi may waxee bu baax a baax a baax kon loolu daal len la ci tënk boo xam ne bi daal sunuy jaar-jaar la ci wàllu njàng mi xam naa ñoo ngi dollee sant yàlla bu baax subhanahu wa taala ci wàll googu te it di ko ñaan mu dolli ñu defal dolli ñu xam-xam bu baax a baax boo xam ne bii dañuy gën a jëriñ àdduna ak alaxira bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yeneen laaj yi nga xam ne yi moo ci toppit nag mbokk mu baax mi sëriñ bay juuf ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel wax dëgg yàlla di ko wax ne ko rafetlu nañu lool lool lool taxawaayam ak xam-xamam di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla doon defal tawfiq bu baax a baax a baax waaye moom itam yaakaar naa képp koo xam ne kii xam nga waajuram bi rek muy sëriñ Sawru Diouf bu amee ci njabootam ay jëmb yoo xam ne nii nii ñu mel ni la ñu mel wax dëgg yàlla loolu du la jaaxal ndax yàlla moom subhanahu wa taala loolu bi wax ne inna allaha la yudiu ajral muhsinina yàlla moom ne ne ñi nga xam ne ñi dañuy def lu baax du ma sànk mukk mukk seen jëf joojee te ko ku nekk xam na ne seen waajur yi wax dëgg yàlla ci def lu baax ak wax lu baax ak bëgg xam-xam te di dund xam-xam te di ko sàkk fu mu mën a toll rek loolu mooy yitteem mooy bëgg-bëggam kon yal na yàlla doole defal taw bu baax a baax gën koo yàggal suñu kanam bu baax a baax suñu bay juuf dafay laaj ne bokk na ci laajam muy tiim lay laaj lan mooy waral tiim waaye tamit tiim dëgg-dëgg nan lañ koy defee su fekkee ne nag dañu tàmbale ci lan mooy tiim maanaam dañ ko naan tahaaratun turaabiyatun taqumu maqaama tahaaratil maiti xuslan wa wuduan min kulli wajhin tiim daal ni ñu waxe baatab olof bi daanaka baatab arab bi lañ jël rek nag na mooy attayammum tiim nag ne ne ak laab la goo xam ne gii ci suuf lañ koy defee suuf si nga xam ne ci la ñuy dox ne na tiim ak laab la goo xam ne gii ci suuf soosu lañ koy defee nga xam ne soo ko defee na nga xam ne nii moom la charia te ni nii la ñuy tiimee tiim googu ngay tiim day taxaw taxawaayab boo waroon a jàpp te mënoo jàpp boo tiimee mu daal di taxaw taxawaayab jàpp nga waaye itam boo waroon a sangu farata te mënoo sangu farata it boo tiimee niñ la koy sante mu taxaw taxawaayab yow sangu nga farata kon na loolu ci tëgg mooy lan mooy tiim bu ko defee it dafay laaj lan mooy li nga xam li mooy waral tiim dañ ko naan bokk na ci li nga xam ne li dina waral nit ki mën a tiim mooy faqdul ma alkaafi li tatahur nit ki bu yoree ndox moo xam ne mii maanaam su cay jàpp ndox moomu dafa tuuti ba du mën a raxas cëram yépp te maanaam mënu koo am menn pexe mu def ba maanaam ndox ma matale cër ya ne su boobaa dañ koy wax man ngaa tiim waaye itam bokk na ca adamul xudrati ala isticmaalil ma nit ki itam bu aman ndox moo xam ne mi doy na sëkk ngir mën ko jàppe wala mu mën koo sangoo waaye am na ngantal maanaam mënta jëfandikoo ndox ma bu ko defee mun tegu ci ngant lu wér loo xam ne li leer na nañ ñu ne mënta jëfandikoo ndox ma loolu itam bokk na ci liy waral tiim wala li koy sabab bokk na ci albuudu an makaanil maa yi bi miqdaari miilin sharciyin nit ki itam boo xamee ne yorutam ndox fi mu nekk béréb bi mu nekk amu fi mu ndox te diggante bi nga xam ne bi falam ndox nekk mu war faa dox jëm fa ngir wuti fa am ndox dafa mat ab kilomètre ak juróom benn téeméeri mètre maanaam lu mat ab kilomètre ak juróom benn téeméeri mètre ne ne bu fekkee diggante bi noonu la tollu tamit bu boobaa may nañ la nga tiim bokk na ca wujudu maradin yaziduhu istimaalul maa i aw yu axirul bura nit ki bu fekkee ne dafa feebar feebar boo xam ne bii su jëfandikoo ndox mi ci jàpp wala sangu farata maanaam feebar boobu day yokku day dolliku wala su ko jëfandikoo day tax feebar bi bu waroon a gaaw wér du wér bu boobaa it na ne may nañ ko mu tiim xawful aduwil musi fi tariqil maayi foofu nga xam ne fi fa nga war a wute jëm ndox itam nga xam ne da ngay dox jëm fa ne ne su fekkan ni am noonu nekk na ci yoon wi ci diggante bi boo xam ne boo génnee dem di wutim ndox rek maanaam mu kar la ci yoon wi lor la gaañ la ne ne su boobaa may nañ la nga tiim bokk na ca shiddatul xaajati lil maayi fi muraafiqil xayaati daruriyati ne ne itam su fekkee ndox mi da nga ko yitte woo lool ci mu tombeek ne yow mii kat am nga ndox mu mën a sang wala mu mën a jàpp waaye am nga ci aajo yi loo xam ne lii lu aju ci dund gi la loo xam ne lii maanaam jamono jooju nga toll boo jëfandikoo wut ndox mi mën ngaa ñàkk sa dund ne ne su boobaa dañ lay wax jëfandikoo ko ca foofee te tiim lu mel noonu nag mooy ne ne kacur bi lu mel ni da ngaa toll foo xam ne fii yow lii nga nar a jàppale boo ko naanut maanaam aw mar mën na la rey wala mu lor la lool awil ajjini wala ngeen yor loo xam ne da ngeen ko war a mooñ te xiif sonal na leen te bu ngeen ci defoon ndox mi tooyal ko du ngeen ko mën a lekk te su ngeen lekkul xeex bu mën na rey wala mu sonal leen lool aw shurbi xayawaanin muxtaram wala nga yor nekk ak bàyyi ma boo xam ne bi bu ñu ormal la nga bàyyi ma boobu mar-mar woo xam ne bi soo ko joxoon ndox moom wuu mën na caa doxe loru moom itam may nañ la nga tiim waaye tamit bokk na ca faqdu istixraajil aalat faqdu aalat istixraajil ma min xablin aw dalwin ne na itam bu fekkee ne ab teen la nga xam ne yow teen bi ab goj ak ak baag ngay mën a am mën a génne ndox mi te amoo goj boobu wala amoo baag boo mën a takk ci buum gi ne ne bu boobaa dañ lay may nga tiim ba ca desit muy bu mujj mooy xaw fu fawaatil waxtu yi ne na itam boo ñàkkee ndox waxtu wi dema dem ba nga xam ne bii muxtaar ma jeex na daru yi ba ma ngay bëgg a jeex ne su boobaa te amoo lenn loo jàppee may nañ la nga tiim yooyu daal lenn la ci li ñu gëstu ci fiqhi ne mooy sabab yi nga xam ne yee ku ci benn dal rek maanaam mën nga tiim tiimal waxtu wa nga xam ne bii moo jot su ko defee da cay bokkaat ci lu jëm ci wàllu tiim yi muy kayfiyatuhu maanaam naka la ñuy tiimee dañuy wax ne yakunu at tayammumu bi darbatayni darbatin lil wajhi wa darbatin lil yadayni ne ne tiim nag ni ñu koy defee bu ñu ko doon tënk dañu naan da ngay teg sa loxo ñaari yoon ci suuf teg loxo googu nag maanaam mooy da ngay tàllal sa ñaari loxo yi ba mu tàlli ñaari tàng yi maanaam nga dëpp ko ci suuf loolu la ñuy wax darba bi mooy teg ci suuf ne na ñaar yéen nga koy def waaye dañuy xàjjali ko doo ko tegale da ngay teg sa loxo yooyu ci suuf maanaam dëpp ko ci suuf si benn yoon daal di ko yëkkati masaaye ko sa xar kanam daal di dëppaat sa loxo yooyu ci suuf yëkkatiwaat ko masaaye ci say ñaari loxo bu ko defee loolu mooy li nga xam ne ni buñ ko doon tënk dañ naa mooy nii la ñuy tiimee waaye tamit no defi ni mooy bi nga dëppee sa ñaari tenq yooyu ci suuf maanaam daal di koy yëkkati bomb ko ci sa jë boobu maanaam fi nga xam ne fii boo doon jàpp yépp fa nga da nga ko war a raxas ci xar kanam bi maanaam nga fexe ba bomb fa sa ñaari loxo yooyu ci sa xar kanam bii daal di tegaat sa ñaari loxo yooyu ci suuf yëkkatiwaat ko da ngay tàllal sa loxo ndeyjoor bi tàllal baaram yépp ba mu tàlli nga jël sa loxo càmmeñ bi tengali maanaam biir loxo bi nga teg ko ci sa cati baaraam yi loxom ndeyjoor boobu yi ci ginnaaw loxo bi maanaam ci der bu ñuul bi bomb sa loxob càmmoñ boobu ba ci sa concal yi su ko defee nga wëlbati loxob càmmoñ bi ci kaw teg ko ci kaw concal yi maanaam biir loxo bi bombaat ko mu jëmaat ca baaraam ya maanaam ca tengal ya ba nga ba der bu ñuul bi jeex waaye doo ci bombaale tengal ndeyjoor bi daal di talalaat sa loxob càmmoñ boobu ba baaraam yi tàlli yow nga daal di jëlal sa loxo ndeyjoor boobu itam daal di koy teg ci cati baarami loxo càmmeñ bi ca kin ca ginnaaw ca der bu ñuul ba bomb mu loxo boobu itam moom itam ba mu dem ca conc la nga daal di ko wëlbati ko dóor ko ci biir conc li maanaam ci biir loxo bi bombaat der bu ñuul boobu ba mu àgg ci tenga li maanaam te nga bañ ca boole tenga la lii daal mooy li nga xam ne lii moom la ñuy tiime maanaam boo koy xool nag day mel lu xaw a yemb lool waaye it nag jar naa tey ba te xantal ko ko ba defin woowu nga xam ne ni moom lañ koy def maanaam nga mën koo def ndax dafa taxaw taxawaayu am njàpp wa ak taxawaayu sangu farata kon na nga góorgóorlu ba noonu nga xam ne ni lañ koy defee rek nga defe ko ni su ko defee dina aaju ñu xam lan ak lan mooy doon li nga xam ne lii mën nañ caa tiim bu ko defee ne ne assaayidu taahiru da cay bokk mooy loolu ñuy wax pàkk bu laab kaw suuf si maanaam fu ci laab rek te doon suuf si su boobaa mën nga caa tiim aw xajarin wala aw xeer woo xam ne bi aw doj woo xam ne bi maanaam doomu aadama defu ca dara aw ramlin wala beeñ suufas beeñ soo xam ne si moom itam comme suuf si yu tàll yooyu dijj yooyu mënees na caa tiim al gissu la si lam yut baax ak laso bi nga xam ne bi dañ koy ngasa ci suuf buñ ko toggagut boobu itam mënees na caa tiim awit tiin an ni wat tiin an ni ak ban boo xam ne bi dafa dem ba fen di wow ban boobu itam buñ ci defut dara mënees na caa tiim wa kullu ma saayida ala ardi min anwaay ak lépp loo xam ne li mi ngi ci kaw suuf rek te bokk ci xeeti suuf yi muy xeer yaag beeñ ba mu ndax yooyu yëpp daal yooyu bokk na ci yi nga xam ne yi mënees na ko tiime waaye yu génn yi rek lu mel ni ak basang ak ay karoog peron bu ñu dërëg aw daj woo xam ne bii doomu adama da caa def dara yooyu yëpp kenn du ci tiim mëneesu koo tiime boo ko tiimee du baax su ko defee kon loolu itam lenn la ci li nga xam ni doon na ko laaj mu jëm ci wàllu tiim beneen laaj muy laaj maa ngi asuturatu maanaam dañ ne nit ki buy julli bu fekkee foo xam ne fii ragal na ku jaar ci kanamam jege ko maanaam jaar ci kanamam ci jamono ji mu julli daa war a wut suturatu asuturu moo la wolof di wax saatir maanaam nga wut loo xam ne danga koy def ci sa kanam ngir bu nit bëggee jàll jaar ci sa kanam mën a jaar bu ko defee loolu dox sa diggante ak moom ne ne tayit maanaam mu ne nan la war a mel dañ ko na asuturatu min sunani salaati lil imaami wal fazzi bi ñuy jàng fiqh di jàng sunanu salaat yi moom sutura mi mooy muy saatir da caa bokk nga xam ne sunna la kiy julli fu mu ragal ñu romb ci kanamam bu dee ni kuy jiite la moom imam yi ci boppam da ko war a def ci kanam waaye ki ànd moom dong di julli itam da ko war a def ci kanamam su ko defee ki ñuy jiite nag bu fekkee ni imam wut na saatira moom ci saatiras imam soosu lay demaale waaye du wut saatiras boppam nit ay nit daal bu ñu àndee di julli imam mooy wut saatir def ko ci kanamam yóbbaale ca ña ca des ñépp su ko defee ne lan lu koy waral nag mooy xawfu musalli almurura bayna yaday isa kaana fi makanin yuxsha minhu almururu ne ne li koy sabab nag bokk na ca ki nga xam ne kii day julli bu nekkee foo xam ne fii ragal na ne bu tàmbalee di julli mën nañoo romb ci kanamam noonu ne ne su boobaa la ñuy soxla saatir ndaxte ne ne li annal murura yusil marra li annal marra yasamu ne ne li tax nag ñu bëgg nit ki julli fu mel noonu muy wut saatir ne ne ki nga xam ne kii dafa gis nit di julli mu jaar ci kanamam ne ne moom moo may cay jaar dam da cay amee loraange ndax ne ne loolu bu ko defee maanaam day doon loo xam ne lii bàkkaar lay doon ci moom moom mi nga xam ne ni moo romb ci kanam ki nga xam ne kii day julli kon ne ne wa suturatu takunu bi tahirin saabitin xayri musxilin xayri musxilin waaw ne ne nag saatir nag day nekk loo xam ne lii lu laab la teyit doon loo xam ne lii boo ko sampee danaan dégg taxaw dal du yëngu du def dara tey du doon loo xam ne lii day doon bind boo xam ne bii maanaam day cay nekk di ca xalaat ba mu mën a yóbbu sam xel génne ko ca julli ga maanaam mu ne nag ni ñu koy natt dal mooy fii xilasi rumhin wa tuuli ziraan ne ne daal saatir daal bëgg nañu mu doon loo xam ne lii day tal talaay boo xam ne bii talaay ab xeej lay doon ab xeej na xam naa ñu bari duñ ko mën a xam waaye aw yet woo xam ne woo yem la daal maanaam noonu muy tollu ne nañ bëgg na saatir toll noonu waaye guddaay bay dañoo bëgg mu mat lu ma mu doon lu mat genn wàll ak meetar bu ko defee nag saatir moom dañ koo xaw a sofental xaw koo xaw a néewal lool waaye dafa am solo te dañ ko war a bàyyi xel te ne ne façon boobu mu wax rek maanaam moo ko war a mën doon maanaam daal nañ ko mën a waxe muy aw wet woo xam ne bi day mat genn wàllu meetar dañ ko war di fàggu sax nag nga xam ne fu nuy jullee foo xam ne fi ragal nañu ko romb ci suñu kanam rek maanaam ñu samp ko ci suñu kanam waaye aw yet du- noonu mu ko waxee moom loolu loo xam ne day am talaayab ab xeej te tolloog zira zira buñ koy natt ñaari dañ naan genn wàllu meetar rek maanaam mu toll ko loolu moo doon saatir bu ko defee ne ne fala yajuusu an yuttaxasa an naimu sutratan ne ne nag kenn waru di julli gis kuy nelaw maanaam nga daal di ñëw def ko saatir mu nekk ci sa kanam ngay julli oo, eh, waaw wala takunu sutratu illa ila zahri imraatin ajnamiyatin wa kazalika azawjur nee na itam waroo gis jigéen moo xam sa soxna la wala ab jàmbur la ci yow maanaam nga di ko def saatir su ko defee saatir daal am na ñu ko yombalal ba bu ñu nee dañuy julli bu ñu wut saatir lu ñu gis rek loo xam ne li mën nañ koo jël teg ko ci seen kanam ñu daal di ko ci jël teg ko ci waaye du noona bang mu dib sees mënu saatir pot mënu ko ndab mënu ko saatir daal ci gàttal ku koy wut mooy bant boobu mu la wax ne day mat genn wàllu meetar te tal talaayab xeec kon loolu dong la ñu jàppagun ci fiq gisagun ci fiq yi na it moom la jullikat bi war a def saatir beneen laajam bi ci topp mooy alfarq bayna al azani wal iqamati lan moo taqale diggante noddu ak liqaam dañ ko naan kilahuma sunnatun wa baynahuma farqun fil kayfiyati nodd ak li xam ne bu dee atte la ñoom ñaar ñëpp sunna lañu maanaam bu dee nodd nag boo jàng fiqh defe naa dañu dem ba dañ la koy defal juróomi atte da cay am yoo xam ne dañ naan ñi naan dana léeg-léeg mu doon lu war léeg-léeg mu doon sunna léeg-léeg mu doon lu ñu sopp léeg-léeg mu doon lu ñu sip waaye tam léeg-léeg mu doon itam boo xam ne bi day araam kon xam naa foofu lañu war a mën a tekk atteeb nodd bu dee ni liqaam la moom sunna la bu ko defee booy xool nodd ak liqaam moom seen baati benn la waaye nag nañu leen di defe moom bokkut ne ne bu dee ni al azan la da ngay wax allahu akbar maanaam bu dee ni da ngay noddu baat yi nga xam ne yi moom ngay wax tam tàmbalee ca allahu akbar ja ba ca kere ngay daaneel noddu ga neneen baat yooyu dañoo bëgg maanaam nga di ko sukkuun maanaam nga di ko maas maas néeg comme allahu akbar raa gi nga xam ne gi moo ci mujj dañuy bëgg nga def ko ar te bañ koo def ru dañuy wax dañuy bañ nga wax allahu akbaru boo dee noddu ashhadu an laa ilaha illa allah xaagoo nga xam ne gii moo mujj ci laa nga maas ko sukun te wax bañ a wax ashhadu an laa ilaha illa allahu loolu dañ koy bañ ci noddu dañoo bëgg nga wax dañoo bëgg nga wax ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah rasulullah ah googu yi mujj ci allah ja yi dañoo bëgg nga sukkoon ko waaye tam dañoo bëgg ra daal gi muhammadan ra nga idgham ko loolu la ñuy wax idgham xam naa loolu moom ñuy jàng ñoo koy mën a xam ashhadu anna muhammadan rasulullah nga xam ne noonu nga ko war a waxee ko defee daal buñ lay wax daal ci benn tomb boo xam ne bii nodd wóote na ko ak ak liqaam mooy daal araf yay mujj ca baat ya ngay daaneele daal yépp da nga ko war a ma sukun bu dee nodd la waaye bu dee liqaam la araf yooyu nag da nga ko war a maas araf yooyu di mujj ca baat ya da nga ko war a maas bu ci nekk nañ ko war a maase nga xam ne bu dee nodd dañ naan allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله loolu la ñuy noddee waaye bu dee li qaam la nag da nga naan allahu akbaru allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa allahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi xaya ala alsalaati xaya ala alfalaaxi qad qaamati salaatu allahu akbaru allahu akbaru laa ilaha illa allahu loolu moo di la xam su ko defee gis nga kon noonu benn la ci liñ leen di tàqalee léegi den noddukat bi nag war naa moytu yi nga xam ne yi moom lay bëgg a wax mu ne wal yaxzari wal yaxzari l muazzinu min maddi baa i akbar ne ne kii noddu nag na moytu suy wax allahu akbar mu xëcc baag yi maanaam wax allahu akbar ndax ne ne boo nee allahu akbar mooy akbar dafay am ñoo xam ne dañuy wax ne maanaam akbar maanaam ay tabala la waaw comme kon foofu yàq bu rëy rëy lay doon maanaam xëcc baag yi waaye itam ne nañ kii noddu na moytu madd hamsatu ashhadu ak hamsatu lafzil jalalati ne ne itam ñaari xamsa yi kiy nodd waru koo xëcc muy xamsa gi nekk ci ashhadu mu ne dañuy bañ kiy nodd wax ashhadu waaye itam allahu gi itam dañuy bañ xamsa gi ci nekk nga xëcc ko muy nga wax allahu ndax ne ne boo ne ashhadu mooy dangay laaj ne ndax ndax ndax damay seede kon xam nga ne waxoo ne damay seede waaye da nga ne ndax maa ngi seede kon yaa ngi laaj sa bopp mel ni defagoo ko kon defoo ko soo ne allahu akbar da nga fi mel ne da ngay laaj ne ndax yàlla moo gën a màgg loolu de su ko def ñu nga ci soo ko xëccee rek muy ñaari xam si góor ci xëcc rek maanaam daal di yàq maanaam yi kon nee na loolu na ko am noddukat moytu ci ci bu dee nodd te am na ñoo xam ne nag noonu la ñuy nodde dañuy xëcc de dañu naan ashadu ndax maa ngi seede allahu ndax yàlla gën a màgg loolu baaxut ne ne ndax li annahu istifhamun maanaam ab laaj la wal wal waqfa alal haib min laa ilaha ne ne dañuy tere maanaam kii noddu na moytu su ne ashhadu an laa ilaha mu taxaw ci diggante boobu ndax ne ne boo taxawee ci laa ilaha ja te delloo ca illallahu ja taf ko ca ne ne loolu day daal di dàq day bëgg a mel ni da nga ne benn yàlla amut boo taxawee foofu rek da ngay daal di dàq ne benn yàlla amut kon ne ne na nga nay kii mooy nodd na moytu taxaw ci xëge muy mooy ashhadu an laa ilaha daal di ne tekk ci diggante boobu doo ko wax illallah déedéet da nga ko war a da nga ko caa war a taf ashhadu an laa ilaha illallah waaye ne na boo taxawee ci ashhadu an laa ilaha rek dàq nga lépp kon yàlla amatut lay wax kii nodd itam ne na moytu idghaamu daal tark idghaamu daal firra min muhammadan gis nga boo dee nodd da nga naan ashhadu anna muhammadar day mel ni fi ngay tudde raa daal googu wax na wax dan doo wax dan waaye da nga naan dar muhammadar rasulullahi da ngaa war a jël loolu la ñuy wax idghaam mel ni genn masque ga da nga koo jël yóbbu ko ca raag rasul ga ne loolu kii noddu bu mu bàyyi idgham boobu li annahu lahnun xafiinun indal qura ne loolu ak njuumte la wa fatxal laam min rasulillah am na ñoo xam ne bi ñu nodd dañ naan ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulallaahi gis nga boo ne wa ashhadu anna muhammadan rasulallaahi waxagoo ba tey ne muhammad ndawal yàlla la te foofu da ngaa wax ne da ngaa war a wax ne muhammad ndawal yàlla la waaye gis nga ay na laam gële ca rasuulu jee soo ko fatxa maanaam soo ko maasee ca kaw ak fatxa ne ne waxagoo ba tey ne sayyidina muhammad ndawal yàlla la da ngaa wax rek ne wa ashhadu maa ngi seere ne anna muhammadan naka muhammad ay naka muhammad day rasulallaahi ndawal yàlla lii waxoo leen moom la waxoo ne ndawal yàlla waaye da nga ne ndawal yàlla lii ñaari baat yi benn la boo ci génne woon bàyyi fi moroom mi rek boo ci jànkati naxaw yi day mën a dem badal lañ koy wax bu ko defee waxagoo ne maa ngi seere ne Seydina Muhammad ndawal yàlla la soo commencé fataha waxagoo ne Seydina Muhammad ndawal yàlla ndaxte ne muhammadan wa ashhadu anna muhammada rasulallahi maa ngi seede ne muhammad ndawal yàlla lii de daal di jàll xam nga ne kon baarab seede ne yonante la ñëwagut na ko moytu kon bu ko defee wa tark alxa min xayya xayya ala alfalaax ne nit na fexe ba xayya ala alfalaax gi ñaari xaa yi yëpp mu koy tudd ndax su ko tuddul rek tudde ko weneen araf rek maanaam day soppi maanaama am na ñoo xam ne bu ñu noonu dañ naa ayya ayya alal falaa ayya alal falaa déedéet xayya alal falaa dégg nga xam nga boo nee xay ayya alal falaa boo tuddul ax gi da nga naan ñëw leen ci àll bi te ñëw leen ci taxa gi nga war a wax ne ñëw leen ci àll bi leneen li xurujihi li xayril maqsud ne ne boo soppee xaagi rek da nga koy yóbbu ci loo xam ne jubluñu ñaan baat ba loolu lañ doon wax ne wa yakunul azan kon mawxuufan ay xayra muxab bal yakunu saakinan noddu daal ne nañ la da ngay sukkuun waaye doo i'rab i'rab mooy baat boo bind bu dee ni ñu jàng naxu grammaire u arab ba i'rab mooy boo amee baat arab wa ca mujj ñu war ko maas fatxa wala ak lonk wala ak sukkun wala ñu war ko maas ci suuf loolu la ñuy wax i'rab bu dee nodd na nag baat yi nga yi ngay wax arab ya ca mujj yëpp da nga koy sukkun la lay wax waaye gis nga bu dee liqaam la ne ne moom da ngay maas baat yu mujj ya arab ya lañ leen war a maas loolu loolu la ñu wute ne ne wa wa yuxzaru fi l iqamati baadu ma yuxzaru fi l azan ka maddi baadil xuruf ne ne te boo demee ca liqaam am na ci lenn loo xam ne doon nañ ko moytuloo noddukat bi fee ca nodd ga waaye dañ ko koy moytuloo fii mooy comme di xëcc yenn ci baat yi waaw xëcc boobu wa takunu moraban laa saakina ne ne itam liqaam moom maanaam dañuy maas araf yu mujjee ca ca ca baat ya lañ ko war a maas waaye dee su ko maas sukkoon rek waaw kon loolu moom lenn la ci li taqale nodd ak liqaam beneen laajam bi sëriñ Bay Juuf day laaj suruutul muaddin noddukat yan charte noddukat ndax am na ay charte boo amee ay charte yan ak yan la waaw dañ ko naan noddukat kay am na ay charte waaw ne nañ ko sarti noddukat xismaani maanaam ñaari xaaj la shuruutu sixatin wa shuruutu kamalin jëmm ji nga xam ne ji nodd mooy métier dafa am ay charte yoo xam ne ñaari xaaj lañ ko def yenn charte yi mooy charte yoo xam ne dina tax nodd ga bu noddee mu wér yeneen charte yi doon charte yoo xam ne su ko defee dina tax nodd ga mat kon daal ay charte yuy tax nodd ga wér bokk na ci charte yi koy nodd waaye tamit charte yoo xam ne day tax nodd ga matit bokk na ci charte yi noddukat bu ko defee fa suruutu sixatin arbaatun charte yi nga xam ne dañ koy bëgg mu nekk mu am ci noddukat bi ne ne te bu ko defee maanaam nodd ga wér ñeent la awalan an yakuna musliman bokk na ci charte yooyu wéral nodd kii nodd na nekk ab jullit fala yasixu min kaafirin ak nodd bu ko bi yéefar defee du wér bokk na ci charte ya an yakuna zakaran fala yasixu min imraatin kii nodd itam bëgg nañu bu noddee balaa nodd ga wér mu doon góor waaye bu fekkee ne jigéen la jigéen bu noddee nodd ga wérut bokk na ci an yakuna baalixan fala yasixu min sabiyin nodd itam bokk na ca la koy wéral kii noddu nekk ku majeur maanaam nekk mu kallaf moo xam ne mat na charia mi ngi daw ci kawam kawam ne ne kon gone bu noddee noddu ga du wér an yakuna aaxilan fala yasixu min majnunin ne dem bokk na ci charte yi nga xam ni bu nekkee ci noddukat bu noddee bu wér mooy na nekk boroomam xel ne ne kon ab dof ku am xelam làqu masalan su noddee nodduga du wér kon ñeent yi daal mooy charte yi nga xam ni mooy tax nit ki bu noddee bu wér mooy noddukat bi na nekk ab jullit na nekk góor na nekk ku majeur doon mu kallaf waaye tamit na nekk koo xam ne kii ko amam xel la bu ko defee wa shurutul kamaali charte yi nga xam ni day tax noddu ga mat mooy an yakuna adala adilan adilan aarifan bil awqaat yi ne ne bokk na ci charte yi tax nag noddu ga mat kii nodd na nekk koo xam ne kii ku maandu lay doon ku maandu maanaam moo war a nodd aarifan bil awqaat yi am noddukat it bokkoon na lay tax noddam ga mat maanaam mu xam waxtu ya sayyitan loolu itam bokk na ci charte yoo xam ne dina tax nodd mat muy nekk koo xam ne kii ku am kàddu la ku xumb kàddu la ku koy senjle nga xam ne kàddu gi day yëkkatiku day neex day senj day xumb mooy sayyitan mutatahiran te mu nekk koo xam ne kii ku laab la nag qaa'iman te buy nodd mu taxaw mustaqbilal xiblati te buy nodd mu jublu penku lu dut ni dafa bëgg yëgal nodd ga yeneen gox yi nga xam ne bu wëlbatiku wut maanaam duñ ko dégg bu boobaa may nañ ko muy wëndeelu waaye daal la ñu bëgg mooy la koy matal mooy na jublu penku te it na bañ a nekk koo xam ne kii moom noddukat bi julli gi muy noddal nii fekk na julleen na ko ba noppi koo xam ne kii julli nag julli ba noppi maanaam su noddalee waxtu julli woowee nodd ga matut mooy ne an laa yakuna xat salla tilka salaat allati yuazzinu laha bu fekkee ni masalan dafa julli tisbaar ba pare ay nit ñëw bëgg a julli tisbaar mu noddal ko su boobaa nodd ga matut kon dal ñaari charte yi mooy charte yi nga xam ne yi tënk nañ ko ci charte yi kii noddu yenn yi ñeent la yoo xam ne da koy wéral waaye yi ci desit mooy la nga xam ne mooy tax noddu ga mat beneen laaj bi ci topp sëriñ Mbay Jaañ ñoo ngi seer baax moo ko fi yónnee ñoo ngi seer bu baax a baax di ko ndokkeel di rafetlu loolu taxawaay bi ba macha allah moom day waa laaj lu jëm ci naafila waaye muy doon naafila bu ñu jullee ajuma ba noppi dina mu dafay seetlu ne ginnaaw jullee ajuma daal dafa di kenn seetlu ne moom ñu bare bare bu ñu ko bu ñu jullee waa pare duñ fa nekk di naafila dañuy daal di dem waaye léeg-léeg day seetlu ne am na ñoo xam ne léegi bu ñu jullee ajuma dañuy naafila muy laaj nag maanaam sabab boobu maanaam naafila daal ginnaaw julli ajuma moom lan moo def ab teem bu ko defee li ma koy wax nii ci alfiqhul maliki laa koy jëlee ndax borom xam-xam moom dañuy wuute ci yu bare bare bari waaye man ñaare fu ak wuute amee rek maanaam damay jéem a gëstu xam la nga xam li moom la ci al mazhabul maliki wax ma jël loola rek teg ko ndax dañ ne ñun li nu war a jëfandikoo mooy al mazhabul maliki kon moo nu gën a noppal su ko defee li ma lay wax nii foofu rek laa koy sukkandiku muy bu dee ci al fiqhul maliki yi dañ ne tajuuzu naafilatu baadul jumaati ñoom dañ ne may nañu nit ki su jullee ajjuma pare mu naafila wal afdalu an takuna fil bayt ne ne nag bu dee ni dañuy naafila ginnaaw ajjuma ne ne la gën la gën maanaam may nañu ko waaye la gën mooy mu ne nga defe ko sa kër nga defe ko sa kër wal ahabu ilal malikiyati an yansarifa musallil jumaati wa yatanafala fi baytihi wala yatanafala wala yatanafalu fil masjidi dane ñi nga xam ne ñi dañuy dund ngiram imam malik moomu ne nañ liñ gën a bëgg dal gën koo sopp mooy nit ki su jullee ajjuma pare mu dellu këram bu dee naafila mu naafila foofee kon xañ na mën na am loolu mu wax ne daf daa wut gis lu bari ay nit buñ jullee añu pare di naafila xañ na jéem dana war a sukkandiku ci ngërëm imam malik te ñoom lii lañ wax xañ na mën naa am loola bokk na ci sax yi nga xam ne moo waral loola waaye itam terewut it ne ne ba tey ngir mi terewut daganal na maye na ku julli ajjee ba pare it maanaam nga naafi la kon ci bu dee di ci tomb bu njëkk bi la mooy dañuy jàppare ne kon ku mu neex daal suñ julli ajjee ba pare mën nga naafi la bu la neexee nga naafi laa ko ca jumaaya ja waaye itam jéem na ne nag maanaam ñoom li ñu gën a bëgg te te mooy li li leen gënal mooy nga defe ko sa kër xañ na kon mën naa am defe ko kër ñu bari moom la ñu tànn ba tax maanaam ñuy dem di ko defe ci seen kër su ko defee lu mel ni al imam ibnu Baaz moom dane naafila googu moom ginnaaw julli ajuma sunna la ne ne liy sunna mooy an yu sàllee arbaan mooy bu koy ku koy naafila ne ne moom moom benn baaz ne ne nga def ko ñeenti rakka daal di ne xaala sallallahu alayhi wa sallam man kaana musalliyan baada aljumaati fal yusalli baadaha arbaan ne ne yonente bi ne ne képp koo xam ne ki da nga bëgg a naafila boo jullee ajjuma pare na nga ko def ñeenti rakka fa sunatu arbaan fa sunatu wal afdal an yusalli arbaan sawa fil masjid aw fi bayt yi ne ne bu dee dinañ koy tënk ci sunna daal ne ne ak li nga xam ne lii moo gën mooy mu julli ñeenti rakka moo xam te jàkk ja la koy julli wala ca këram kon naafila gi daal lu ñu maye la ci noonu ñu koy waxee bu ko defee nag defe ko ca jàkk ja ak defe ko ca kër ga moom am na ñu ne noonu boo ci def baax na waaye maaliki bi daal dañ na nga defe ko sa kër moom moo gën xam naa ñu jàppe ko noonu rek beneen laaj bi ci des te moo mujj defe naa ci laaj tey muy tukke ci Basiiru Fay mi ñu koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel moom itam ci laaj yu am solo yi muy tàbbal ci liggéey bi am na solo lool su ko defee moom day laaj xokkumul haadi xam naa li muy laaj baatab perte de blanche defe naa la wax bi ñu ko gëstu daal xam naa mooy alhaadi maanaam al perte blanche boobu mooy alhaadi maanaam ni ñu koy firee ci fexew mooy tonge waaw ni ñu koy firee tonge yaakaar naa baat boobu la daal su ko defee dañ ko naan alhaadi bii nu jàng ngir ñu yaakaar ne mooy perte blanche boobu mooy mooy alhaadi ne ne min nawaaxibil wudui wa huwa maaun abyadu yaxruju min xubulil marati xurbal wilaadati ne ne alhaadi dafa bokk ci li nga xam ne day yàq am njàpp maanaam su génnee ci soxna si bu boobaa bu yoroon am njàpp njàpp ma yàqu na ne ne nag maanaam loolu muy wax blanche perte blanche boobu blanche boobu ne ne am ndox la mu weex moo xam ne mii ci kanam ak jigéen lay génnee te maanaam ci ñi muy génne ci seen kanam maanaam mooy ñi nga xam ne ñu dañoo ëmbën maanaam dañoo tolloon ab diggante bay waaj a am doom nee na jamono jooju nga xam ne ji maanaam des na tuuti rek maanaam ñu am doom maanaam ñu ngi waaj a am doom daal nee nañu foofu la ñu gën a seetloo ne foofu la lool di amee muy ndox mu weex moomu di génn ci seen kanam boobu seen pay mi nee na daal loolu mooy perte blanche waaye bi ñu xool nawaaxe du bu boobu da cee bokk ci yi nga xam ni maanaam day yàq am njàpp kon perte blanche daal bu ko soxna si defee nga xam ne bu yoroon am njàpp moom njàpp ma yàqu na ci nawaaxidul wudu yi la bokk kon yàlla na yàlla doole defal tawfiq bi jay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam